ñu am chance nag ba dem dégg nañ benn candidat mu ni moom lu mu fi def ba mu fi jógee ba léegi 2009 kenn deful lu toll noonu mais li ko mayoon mu def loolu candidat ba dafa déggoon ak président de la république ñun ñu bëgg Dakar am président bu président de la république wóolu candidat bu président de la république wóolu mu nekk Ablaye Diouf Sarr ñun Diouf solution lañ koy tuddee. coût moo gën a jafe parce que c'est quatre-vingt-dix mille jeunes yu tollu seen digg doole nga mën leen pacifier def fa jàmm amul benn riir. mu def loolu coude li jaaxal àdduna bi muy Covid mu am ci une attitude qui a rassuré les Sénégalais mu nekk nitu jàmm soo koy debaal sax tàng xol ni man doo xam looy wax parce que sa candidat nitu jàmm la donc kii la ñu bëgg ñu defal ñu ko maire de Dakar suñu honorable député bi ñaar jigéen le président Macky Sall Dakar moom ak Zahra Thiam fii nag depuis vingt cinq ans ay góor a ko yore te progressé wuñu dañu bëgg nag dénk ko jigéen pour Hann bel progresser te sëñ bi say taalibe ñoo fi dëkk say am di jàmm ñoo fi dëkk bëgg nañ nga ñaanal suñu ñaari candidats yi ñu jàll ville de Dakar ak commune de Hann bel président Macky Sall may yàlla may ko jàmm ba mu liggéey Sénégal ci sago terre bi ñu ko doon critiquer ñun xam nañ li muy jar mais il faut ngeen jàll yaraax kolobaan dafa xaw a seer téeméer bari naa <laughs> waaw téeméer xaw na bari si yaraax kolobaan donc ñu wàññil ñu loolu mais monsieur le ministre daal kii suñu sëriñ la vraiment ñu tàllal ko loxo mu ñaanal ñu def jàmm si diggante yi ba li ñu bëgg ñu am ko. Euh, di am mbégte di fi teew foog naa wax jëpp tënku na mais ñaari jukki rek laa bëgg jukki parce que xat na ñu ngi lay sant bu baax ci dalal bi euh, bi ma jëkk bëgg jëkk jukki mooy kii ñuy sàkku pour ñu ngeen ñaanal ko muy Ablaye Diouf Sarr wala Fat Diouf. Euh, ay nit ñu baax lañu ay nitu kàddu lañu ay nitu Pastef lañu ak gëm-gëm euh, yéene bi ni ko Mbàkke waxee mooy Dakar bu bees bi ñu bugg indi mooy yorin woowu dañu bëggatul parce que ñoom dañu bëgg a jaamu soxla askan wi jaamuwaale ci seen borom taxawaay boobu dafa nekk taxawaay bu am solo. yéeneem ci jàkk yi yéeneem ci daara yi yéeneem ci toppatoo mag yi ci seen wàllu wér-gu-yaram ak tout tànk yi ci seen wàllu yëg wér-gu-yaram gis-gis bi leer na yoon bi tracé na ko te jël na responsabilité bu am importance li mu bëgg a def daf ko bind bàyyi fi ndax li mu bëgg a digaale dafa bu werante bi ñëwee mu wane ni wàccoon ak li mu waxoon loolu moo tax ñu ànd ak moom président Macky Sall tànn ko xam ko ñu bokk yàgg liggéey mais tànn bi ñu ko tànn tànn Fatou Diouf ak seen fukki moroom ak juróom-ñeent yi fi nekk juróom-ñett yi dañu ko teg ci loolu ñu ñëw nag di jéggalu ndaxte nit ñi ne nañu këru sëriñ kenn dafa politique waaye ñu ñëpp ci daara lañu màggee su ma jëlul woon loolu wax ko dafay mel ni am na lu ma ragal Alaaji Umar mooy sama magu yaay mooy sama nijaay ñoom asi man maay seen jaam sama taaw Seydaa laa ko tudde yaa booy yaa gooy moom a jàngal alxuraan donc loolu rek laa bëggoon na mottali lu ab fekkee man dama am dara ci kër gi te mu tegu foofu dama bëgg nga jël ko joxal ma ko Ablaye mii ak Fat Diouf jërëjëf sëriñ Niass ñas bismillahi rahmaani rahim sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax di la jéggalu si dérangement bi parce que bi ñu fi yegsi moom ak mbooloo bi ñu fi yegsi Euh, yéene rek moo tax. ak euh, disponibilité. nga recevoir ñu. ñu ngi ñëw sàkku ñaan. Mm-hmm. ñaanal ñu pour que Sénégal jàmm am. Mm-hmm. pour que joŋante bi ñu jëm le 23 janvier. mu nekk joŋante boo xamante ne ñëpp nañ ko def si jàmm. parce mm-hmm. que loolu rek la léegi réew mi laaj. parce fitna ak loolu euh, jàmm moom kenn mënu si tabaxam rek. kon ñu ngi talal loxo si côté boobu mais aussi di sakku nga ñaanal ñu te jàppale ñu pour suñu résultat parce que nit ki moom fu mu yaakaar rek lay fëkk te am nañ yaakaar si yow si Zaïre ak si euh, li ñu bëgg nag mooy defaraat Dakar bu ñu nee suñu programme dañ ko tudd Dakar bu bees càgginewul ne Dakar dafi newuloon ñu fiy créé bu bees Dakar a ngi fi woon dañ si bëgg lépp rek mooy que ne euh, am na yàqu-yàqu tilim tilim yu fi nekk yoo xamante ne il faut ñu jëlee ko fii pour beesalaat Dakar kon moo tax ne Dakar bu bees bu bees si fànn yu bëri fànn yorin am na lañ si wax parce am na ñoo xamante ne bu ñu yoree dëkk bu toll Dakar dañ naan rek yor nañ Dakar bon nag yegg nañ pale telle sorte que yooyu ñu liggéeyal askan bi parce que mm-hmm. liggéeyal askan bi dañ leen ko joxe mm-hmm. seen xalaat yëpp mooy naka lañ koy utiliser pour yéeg sa kaw kon loolu moo tax fitna bi bëri loolu moo tax xeex bi xëccoo bi entre ñi yor Dakar ak yor réew mi bëri mm-hmm. parce que ku nekk rek foog nga ne fa nga nekk benn kii bu ndaw rek moo des nga yegg si kaw moo tax da xeex rek ñu xëccoo rek alors bañ lay fal da nga tegoon programme pour jàmm askan bi si wàllu santé si wàllu éducation si wàllu bu nekk ñun ñu ne commune comme ville de Dakar démembrement état bi si biir état bi la nekk cest à li koy firndeel mooy maire si boppam état moo koy fay agent agent wu état bi koy fay donc xamante ne état bi dafa am lu mu la dénk ba mu jaral ko mu lay fay xaalis kooku warul jox ay xeloo loolu indi problème mm-hmm. ñu ni bëgg liggéey ñu def suñu programme am na sans engagement peut-être que euh, xawoon xat pour que ñu développé fi nga nañ ko fi bàyyi mhm. euh, donc liir ko mhm. pour xam la lañ si nar mhm. lañ si nar vraiment jaamu askan si wàllu santé dama si jëkk rek ñaari poñ pour nga xam ne suñu yéene vraiment nekk na yéene bu am solo dañoo seetlu ne par exemple mag ñu bëri ñu ngi si kër yi parce que euh, bu dee yenn dëkk yi en Europe seen mag am na foofu bu fa tolloo dañ koy jël yóbbu ko si kër kër yoo xamante ne dañ fay téye di ko toppatoo fii loolu amu fi. Mm. te loolu gënul parce que àndul ak suñu culture. suñu mag si moom dañ leen di bàyyi si kër gi. Mm. parce que dafa am lu ñuy si kër gi. Mm. kër gi dafa am lu ñuy kër gi et moo ànd ak suñu aada. loolu moo moo ànd ak suñu suñu mais nag boo ko bàyyee si kër gi nag dafa jar toppatoo te toppatoo bi mën nga ko si wàllu hygiène mën nga ko si wàllu. donc ñëw waxtaanal ko mën nga ko si wàllu defar ko toppatoo ko bu baax mais boo dul médecin bu feebaree nga am problème te mag bu feebaree souvent doo ko mën génne si lu yomb yóbbu ko hôpital moo tax ñun dañu ne si biir suñu programme Dakar bu bees def nañ lu ñuy wax les les les médecins de quartier suñu ay convention ak ay médecins yu bëri ku rek da am benn convention ville de Dakar de telle sorte mag ñi dañuy am ay carte yoo xamante ne numéro médecin yi leen leen booleel mi ngi si carte fu ñu feebar rek buñ leen woowee ñoo ñoo leen fekk si kër yi faj leen toppatoo leen loolu day tax mag ñu bëri donc mën a am médecin si seen kër te du jar ñu déplacé nekk na effectivement benn exemple ndaw boo xamante ne mi ngi si sans engagement yoo xamante ne def nañ ko suñu programme les lieux de culte lépp lu jëm si jàkk juma dañoo seet ne jàkk ak juma yi souvent dañuy am problème si ñu leen di nettoyer dangay gis jàkk joo xamante ne man na toog euh, trois mois. Mm-hmm. moket bi kenn du ko kenn du ko kenn du ko aspiré kenn du ko defar loolu responsabilité quand même ñi xamante ne ñoo yor commune yi bokk na si parce que loolu mën na indi fàq mën na indi yoo xamante ne souvent day indi problème donc population yi donc ñun dañoo yaakaar ne dañu war a si biir jàpp yi jàppale leen si hygiène mm-hmm. jàppale leen aussi si ndox bi jàppale leen ci facture de mais aussi di discuter ak imam bi parce que imam dana yëg loo xamante ne ñun ñi nekk si commune bi mënuñ ko yëg mm-hmm. parce que si sutura la leen population yi ñëw di téy seen soxla kon imam war na nekk u maire si conseil si boobu nañ donc mën ñëw fi benn bés jox leen suñu programme ay yoo xam nañ mais loolu nag pour que ñu mën ko dérouler il faut que ñu fal ñu au soir du 23 janvier loolu nag am a tam. sa barke yi ñu bu déplacement bu rëy bii nga def ñëw euh, xeebuñ ko euh, lu rëy la ci ñun lu lu ñu neex la te teraanga nag moom teraanga rek a koy fay. te defal nga ñu ko wax dëgg yàlla bàyyi nga sa soxla sa itte xam nañ lan mooy rôle ministre surtout bi nga yore surtout ci moment bi euh, boo bàyyee waxtu ñëw rek loolu rëy na ci ñun xam nañ ne waxtu bu cher la ndax amoo jot ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen ndam bu sedd ak jàmm d'abord li ñuy njëkk def mooy ñaanal leen yàlla ngeen seen campagne lépp ngeen def ko ci jàmm yàlla bu ci benn tolof tolof am xam naa ne li ci des euh, biir néeg la dinañ ko wax mbàkki mu mu wax la ko incha allah li ci des baatin la danañ ci jokkoo Mbàkke mu la ko incha allah gërëm nañ sant rek gërëm leen sant leen yàlla dogal na tey ngoon yëpp ñun ak yéen ñoo na sunu tête de liste le prochain maire de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr mu ñëw tey l'honorable député Ndeye Fatou Diouf tête de liste de Benno ko won ñu liggéey ba muy liggéey ak waa Benno ñu am mbégte gis Benno bu mànkoo nekk benn ñu am mbégte gis benn boo xam ne xaarul bañ ne tey la mu door a jóg ñu am mbégte gis ñoo xam ni dañu daje waxtaan xool soxla askan wi bind ko cib kayit waxtaan ak ñoom te tey fépp fu ñu dem wan nañ ni ñu déggook seen i waa population lañu ñoo xam ne ràññee nañ leen xam nañ leen yóbbu nañu Mariste en yóbbu ñu Mariste 2 yóbbu nañu école japonaise yóbbu ñu ci kër kilifa diina yi yóbbu ñu ci kër iram imam yi ñu leen di gërëm di leen sant di wax ñaanal nañ te am nañu yaakaar na ma ko waxee Dakar bu bees ak aan bu bees waa aan gëm nañu ko te bëgg nañu ko te seen taxawaay ak seen gunge ci ñun ci ngoon si yëpp wane nañu seen yaakaar taxaw na te am nañu détermination pour def ko lu bees dañ ko bëgg a gis ndaxte du lu inventé lu bees mais doxalin bu bees ndaxte xam nañ ni commune u Hann ñeenti milliards mooy budget at bu ne gisuñu ko fen gisuñu ko fen du ci tali du ci këru diine yi du ci daara yi du ci nit ñi du ci dara ñoom it ñu dajeeg nit ñi déglu seeni soxla taataan ko am ci ay solution solution yoo xam ni dafa lënkale ak li nga xam ne mooy programme Abdoulaye Diouf Sarr parce que li wóorte te wóor mooy waay waa ànd gis nañ ñu lii seen njëriñ mooy maire bu ànd ak maire du Ndakaaru lii seen njëriñ mooy maire du Ndakaaru bu ànd ak état du Sénégal parce que maire boo gis agent wu état la donc kenn warul jël maire yi di ci régler say ambition personnelle yor ko di saaga di xuloo di werante pour naan 2024 laa jëm ak 2085 amul li fi ne teg ni tege moo di soxla askan wi fi ne équipe bii dafa nekk équipe bu koy jaamu noonu lañ ko fas yéene def ci 19 communes d'arrondissement yi donc gërëm leen bu baax a baax li fi nekk yéen a ko ànd ak ñun gis ko seen cër mooy ay seede ngeen seede leen li ngeen gis boo leen gisee ñun di ci am gàcce parce que lu leer lu wóor ngeen gis. may euh, rafetlu bu baax tey euh, li ñu def fii si yaraax ñëw nañ euh, def benn tour bu am solo duma ñëwaat si li camarade Seydou Gueye wax en tant que porte-parole du jour mais dama bëgg a féliciter l'honorable député Fatou Diouf pour liggéey bu am solo bu mu fiy def. mais aussi ràññee bu baax liggéeyu Mbacké Seck ak suñu camarade yi fi nekk fii yëpp si commune Hann bel di wax ne euh, am na loo xamante ne euh, il est important que ñu wax ko mooy que ne bu ñu falee le 23 euh, janvier 2022 am na acte boo xamante ne acte bu am solo la moom lañ njëkk a posé te mu ngi su suñu programme Dakar bu bees mooy dana danañu convoqué lu ñuy wax la conférence teritoriale de Dakar mooy acteur yëpp ñooy daje pour xool budget bi gars yi voté ba pare nan la ñuy redéfinir priorités yi pour méngale ko ak li askan bi di xaar. parce que suñu programme Dakar bu bees dafa am ay projet yoo xamante ne ñun gëm nañ ne loolu mooy projet Dakar waas ak Dakar waay bon nag li fi nekk te ñu tënk ko ba pare il faut ñu xoolaat ko te pour xoolaat ko il faut nga woo Dakar waay te conférence territoriale boobu mu ngi suñu programme il était important que ñu wax leen déjà que ne ñu ngi dem pour wut suffrage yu Sénégalais yi pour wut suffrage yu Dakar waay mais ñu ngi xalaat déjà nan la ñuy rëddawaat mbir yi mais rëddaay boobu mu ngi weeru si priorité yi xamante ne ce sont les Dakaroises et les ñoom ñoo koy déterminer pour que ñu mën a redéfinir naka la ñu yoree donc suñu suñu dëkk. loolu il était important ñu wax leen ko bon rendez-vous boobu il faut effectivement le noter parce que lu ñu sentir au niveau de la base mooy que ne les populations yàkkamti nañ bu baax que le programme Dakar bu bees du ab Abdoulaye Diouf Sarr de la liste benn Bokk Yaakaar soit mis en œuvre rapidement